c'est le king. yow boo jee ngi nii. ku ko def ku ko wax la bëgg de. waa jàngi. ku bëgg a baax sol. kii moo jàpp kii. waaye ki bëggut a baax te bëggul ku baax moo sol. ñëpp da koy sol bu yàgg. jërëjëf waaw ndax. Ndiaye man aw ma dul yow. ngay sànq. waaye kii daf maa defal loo xam ne ci àdduna nit ku la ko maa defal ma defal man mënu maa wax ndax xam naa fi ma féete ndeysaan bari na làmb jooy tëgg du la fekk balaa làmb jaa jot nga dagg sa billet dem Paris wala Amérique kon yow dimbali soros bee la ñor mais ci làmb xaalis mukk ku tëgg làmb def ci ay millions avant làmb jee ñëw nga wan ko ginnaaw dem see liggéey Paris doo lijjanti woo bii jaayul jaayul yow amoo problème mu làmb mu ne ma troisième édition du ay caaxaan. chaque at dama koy def. te ku ne xam ne ni Fadel defagul ci média lu jar ñu koy sargal. mais mu ne ma li ngay def ci société dina at mu jot ma jox la drapeau. yéen maa ngi ñaan la jàmm. amiin waay bu déggee Ndiassane mu ne ma sama liggéey permettre woo sax làmb ji ma fi pare la ma a fekk ndax suñu Ndiassane la dem Paris. na ma mais damay pousse li ma doon def sama liggéey ñëw ngir yàlla sa bis bi tàggal sa démb Pape Diop bu gaare fi oto gaa ah, ah. yaay wàccee ñeenti saaku ceeb ak ay bidon dëwlin ak ay ndox man kii amatuma lu ma lay wax man nag sama yaa ngi nii yaay kaay ñii laa kii loo def ci yàlla tax nga koy def man nag gis naa ni ma def ñi la ñooy samay bokk. ñii samay ndijaay lan ak samay xarit ak samay cousin. sama sang bu baax la nag. sama sang bu baax la man nag amatuma lu may wax. lii des mooy dama lay bàyyi maam Cheikh Anta bi nga yaakaar. mu yokk seen ndax ku xool jiyee seen daaw xool ko ren macha allah xam ne lu baax ngay def yàlla bi nga dimbiloon jox ko koppar yi kii mooy bàyyam. adama sax moom waaw woo ma boobu suñu woo naa ma sëñ Saliou lu koy faj kenn xamul xamul sax mu dëkk ma nëbb lépp moo lay wan social dafa nekk suñu direct waaye mënuñu ko cas bi sama biir kër la woon kon xam nga ni kon social lu doy waar la sama biir kër la woon ma tourné ko kii moo jur sëñ Saliou kii ak sama yaay bokk ndey ak baay sëñ Saliou am problème kano nga woo ma ne ma maa ngi lay yónnee xéwal léegi nga joxal ma ko te bëggoo ñu wax ko kon boo wëlbati ko am cër jox ma te sàkkuwoo ci dara man boo dikkee mënatoo maa defal lu weesu lii bu la neexoon tuddee bis ba pare bàyyi maa ngi mais démb délégation bi mu fi yabal ak teraanga yi mu fi ah. yow jënd ma ceeb jënd ma jënd ma ndox jënd ma boisson ba pare li ci dàq mooy dangaa bàyyi si liggéey Paris ñëw ne ma damay ñëw ngir yàlla sa jëm te yow tëj nga laam bataay def ci ay centaine de millions te fekku la fi tëj nga laam bataay def ci millions yu bëri fekku la fi bi ci des mooy ma xamal leen ni bari na làmb ju tage témbe mu lijjanti ko te kenn du yëg combat yu mag yoo ci diggante tage témbe mu dox ko ci suuf jël ay koppar jox promoteur ne ko demal nga defar sa yëf te kenn du yëg ku tëgg laamb def ci millions te du la fekk xam ne kon bàyyi yàlla yàlla sa yaay booy wax ci sa mbaaxoo waaye dara euh, dara nag du yàq sa mbaax dara mhm. li muy wax ci jéy mi wallaahi laazim moo a ci moom mhm. yërëm na ndeyam ji bëgg ay ndijaayam mhm. ñun ndijaayam ndam dara yow suñu bàmba daf ñu dab nappe tey it li nga nit ku ne li mu mbaax goo wax ci mi ngi ci yow tey ñaar ñu baax la yàlla di boole bi mu yegsee danga ni ma ndijaay kaay gan gu ma gan gi ma ko ko parce que yéen itam dara maa ngi taxaw def noonu ci yow loolu dangaa mel noonu ci moom tey li fi indi démb ñëpp teewal nañ ko nit nag léeg-léeg olof dani dina la tuddee ba pare te du la yéene bis bi yéene nga ko yéene mun ta passé nga defal nit ki ba pare wan ko gënaaw doo nangu sax mu tudd ko kon li nga def nii nii nga mel tey dañ lay ñaanal yàlla suñu borom loo mën ren yàlla euh, euh, daaw ko mën ren tey lépp lu weesu lu la fàttali ko lii troisième édition la bu la neexoon tey ji barke Serigne Bamba doo fi def sa tànk ñu tuddee ni drapeau barke du ñëw tey ki bëgg jikko nit ki nit euh, bëgg na ci nit ki ñaar jikko bu la bu la soofee ci doo ko tuddee doom te doo ko tuddee bés te bés bi li muy rëy rëy ak li muy tuuti tuuti ñun xamuñu ko de ñun ay mbokkam Bamba parce que moo nu dàqal lépp bu mel ni événement la te événement la ko mën déwén tey lépp lu ne ca kanam yàlla na lépp leer yaa ak sama jarbaat bii ndeyam dina yàqu ci dara kii noo bokkul kii kii maa ko jox sagari njaam sama doom bàjjan la kii gëm lool te yàlla tax kii nag mooy sunu xalifa di xaarim laam moo ne ci kër gi mooy bàyyi mooy ndijaay mooy lépp yàlla na yàlla yàggal ko ci barke Seydina Muhammad olof ñaay dana ku def dégg waaye boo deful doo dégg dara ay yaa ko def nag den kenn mënu ci dara sa yaay sa yaay laa wax yow li nga yow li nga kii may esclave am jéy jéy mi jàpp ma nag ci làmb ji ñu ma per boo xam ma jox la taxamoo nu ñu demee xam nga gëj naa ci làmb ji tax ma jóg jóge ba Medina ñëw kii daf maa teral ba sonni ñàmbe magam daf maa teral kon yàlla na jàmm yàgg fadel mii fadel mii bu xewlee tey ji ma jóge ba Medina ñëw bàyyi naa làmb ji bu yàgg dama ko nulu bàyyi naa làmb ji mais damay ñëw kii daf may teral saa ma wax loolu lay defal yàlla jàmmam yàlla ci barke nit lu mu am moo ko may boppam dëgg la mais mu ñàkk moo ko boppam mm-hmm. dëgg la dégg nga mu baax. nit lu mu am moo ko may boppam. mais lu mu ñàkk moo ko xañ boppam. kon Fadal li mu am tey. moo ko may boppam. dëgg la. gis nga yu set. Mm. fooy toog da nga koy xool. waaye ku sol yëre la neex toog. moom Fadal lépp lu mu am ci moom la. dëgg la ndeysaan parce que dafa fonk ay waajuram fonk ay nitam fonk ay kilifaam man dama am cër ñaari yoon ci moom. sama jarbaat la suma xarit ñu bokk daayira bu nekk jàmbaar ci daayira bi daayira sëñ Abdourahmane Mbacke moom sëñ Fallou ak sax am fa cër ci biir kër gi lu ñuy def tànk faadal ñëwul duñ ko def barki Cheikhul Khadim su doon mi nga xam ne sëñ Fallou ko di ko denc lu ñuy def danaan ana faadal loolu nag cër la boo xam moom da koo maye dëgg la kon tey bésam bi hmm. yàlla dañ ciy sant yàlla jéey ñu ngi lay sant ñu nga defal faadal defaloo ko ñun nga ko defal ay mbokkam parce ay ay ay cousin yam ñoo fi nekk ak ay nijaayam ak ay xaritam. te am na nu mu doon demee nag xëy na tey bu gëstoo du gis ñu bari te it succès dabu ko. mënoon na ni am naa buzz. dëgg la wane fu ne di ma tudd fu ne mais faadal foo ko fekk. nam meloon démb rek la mel. wallahi la azim taaliba sëñ Tuubaa la taaliba sëñ Saaliwu gis koy tuddee bés da ngay yaakaar wallahi la loolu da laa daan gis yaakaar ci moom dara mu jënd ay billet mhm. wala mu def leneen wala mu def leneen waaye tuddee nit bés mu tudd ay teranga loolu nag wax yàlla bariwul luñ koy gis ah. kon jéy bi nga def leena ma li mooy yéene na la yalla fay yal na yàlla suturaal yaayam ji nag yal na ko yàlla bàyyi suñu kanam mu yàgg fi loolu tëwér ban koy teeru yoonu mag faadal wallaay asi dimbali ndeyam yaayam feebaree sax muy taal otoom ko hôpital loolu ak mu nekk ak mu koo seede tey doxee neneen waaye defu ko yàlla na ko yàlla dëgëral barki Cheikhul Khadim barki Sëñ Saliou faalal ko ñàkk jërëjëf Dio da nga sant suñu xalifa bi yow yàlla nu dund ba ku xool kër gi di nga xam ni kër gi soppeeku na te noonu la dëkkee ñun guddi ak bëccëg mm-hmm. facture buñ ko jox day dem fay ko du laaj kenn ñaari dërëm. te kër gi ku ne xam ne këru jaboot la. ñëpp a ngi fi. Fadal du onku du ne metti na. barkeb sëñ Bamba. bëgg yaayam ji lool. Mm-hmm. grand kaay la mi ngi toog kii nijaayam la. maa ngi ñoo bokk ndey ak baay. kii mooy taaw papaam Badara Ñang boo xoolee lii Dieye Dieye boo xoolee lii boo xoolee lii di nga xam ni Fadel fonk na ay bokkam ñun ñii di ay nijaayam barke Sëriñ Bamba leen ko ñaanal fanam gudd muy taalibe nag lii nga def nag dafa rëy ndax tudde ko bis ba noppi gunge ko ndax bu la neexoon tey nga tudd ko bis ma bàyyi koog bis bi waaye biig nga dikk mu xam ne bis bi nar naa neex defar lépp tey lu fi xéewal yaa ko fi indi ah. kon wane nga ko ni dama laa jàpp te jëm yàlla ji tax uh-huh. xam naa ne promotion mu nga bëgg a def dangaa bëgg ñëpp seen ko ngi la koy dénk nag waa na ko tingoom ba ñëpp seen ko ndax bu ko ñëpp séenee kuy bokkam di nga tedd yërëm na ndeyam yërëm na ay nijaayam ñun bu ñu feebaree moo ñu yóbbu hôpital faj ñu suñuy doom moo leen di faj barke sañ Bamba man gëj ngaa xam ne ordonnance jar te mënoon na ni samay nijaay am nañu ko ndax ñoo ngi liggéey te yàlla wàccunu waaye xoolu lu ñu yor sëñ Saliou mii koroog ba mu la ko waxee nga yëkkati lu bari dox ko sëñ Saliou a nga ne te ba léegi bàyyiwul. ba nag a nag ah ñu ci yaakaaraat. ndax ba tey mi ngi def ay mi ngi def ay suivi te waroon dafa opération. léegi bëgg nag mooy ngeen génn ko réew mi yóbbu ko ci réew tubaab yi ñu mm-hmm. mooy mm. ba ni yóbbu ko ci tubaab yi rek moo tax ñu dindi fi mu ne kanil la nekkee moom lay nooyee ba nag ni ba léegi fii may wax ak yow. mooy defal boppam passement te jàng lay def mi ngi ci lycée bi mi ngi def cinquième mais bi wax doo ko dégg day mujj professeur bi dafa ñëw jegeñ ko ni ko waxal ma dégg te note yu baax lay am mais voix bi mooy problème am ndax canule bi. bu guddee say day sëqat ba nga yërëm ko bu sëqatee rek yeewu naa. sinon mën na faa si fokkee baa mu xam. mbaa mu nekk ci crise moo tax du ma nelaw kon dénkaat naa la sëñ Saliou ma bëgg nga suivre ko ndax xale la boo xam ne wóor na sëñ baa bu taxawee li ma bëgg naa ko am ndax yërëm na ma bëgg na ma te dafa bëgg njàngam mi mais feebar bi mooy handicapam. lii daal laa bëgg lii daal laa bëgg ñu ngi ko yóbbu ci réew ñu dindi kanil bi tëj ko mu mu nooyee voie normale li fekk lii amut daana su ma tëddee doo nelaw fu ne maa ngi koy dóor sama bopp bi ndax acteur développement la maa ngi recette partenaire ku ko mën a yóbbu yàlla rek indil na ma la te yaa tàmbali woon mbir mi kon sëriñ Saali wa ngoog Fadal yàlla nga gudd fantaan day Badara ñaanal nan la fu nu xool daa sedd bu nu waxee fi la ñuy fanaan jërë ngeen dama bëgg ndimbal Fadel ne ko dafa am ñu taxaw nii fi ne nii may ma ñooñu ba ma lijjanti leen ba pare ma woola lijjanti la loolu mooy ak mbaax yàlla dafa ne wala xadd karam naa waxul bànni xar waxul bànni bëy bànni aadama la ah! Ah! Ah! te bëgg sëñ Tuubaa nag lool te yemalewu ko yemalewu ko sëñ Tuubaa kenn yàlla na nga jàmm moo tax ma ni tabe ba tabe jeex la ca gën mooy tabe sa dara jaar ba baax jeex la ca jafe mbaax gu làmbaley fadel baax ci sa bop baax ci say mbokk baax ci say àndandoo baax ba baax ci ñi bañ yow Fadel da baax ñëw leen ma way sama waaji Fadel mu Serigne Saliou man maa xew nag ci jamono jamono gis bi salaamaaleykum man maa feeroon jiitu sax mais dama xëyoon benn sarax ba ma jógee sarax sa laajow ñu yoon wi naqari mais bis bi bii mooy troisième bis te dana ko romb incha allah ah ragal dara ndax euh, sa yaay bu baax kii man maay taawu papa yaayam man maa ko mag mais dama ko respecté fi ma teg sama yaay laa ko teg ndax sam papa ko fa teg moo fa jëkk a teg sam papa sam papa soog ko faa teg sam papa nekk na ci feebar sonn lool ñu ni benn sëriñ li ñu jëli Bambey bu demee ñu jox ko garab yi mu indil ko sam papa ñu ni yaayam moom mooy dem sam fexe ba jóg ni bu ni bu ni bu ndey dem mu yaay fa ndax bu demee bala bala mu ñëw ma dee kon kooku am na fu ko tegoon man mi di wax ak yéen xarum tabaski gëj daa lu muy jaar te dafa am lu ma gën a ñor sax loolu mooy fu ma teg du dugg ci dara te woowu ma wala mu déplacé ñëw ba ci man ni ma grand nangam ak nangam lii lu may def wala lii lu may wax mi ngi nii yàllaa ma tiim dëgg gi laay wax fi ma teg la yàlla na ko fa yàlla teg dara jëy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam maa ngi gërëm képp ku ma bokkal Baye di gërëm samay xarit di gërëm délégation bi ma àndal muy bàyyi Laay ak saat bu saat bu ñoo bokk benn Baye saat bu ñaan ak euh, bàcc bàcc wàdd waaw ñun ñëpp kontaan nañu kontaan nañu loolu di gërëm suñu jaam bi di na Lam bu ñu tudd na gis ko fa ah, ah, di gërëm Baye Modou ah ak Ale ñoom dañoo mën a lekk lool waaye alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf kontaan nañu yal na leen yàlla sàmm jërëjëf Seydina Mouhamed judi Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa salaam daanaka bu xaarim waxee rek daanaka day xaw a tënku xanaa day am mbégte lool di xam daal sama xol sedd na lool tey man na édition yu bëri daan fa daan fa fekk waaye tey moom damaa jaayanteeg sama waa ji ndax Fadel da di koo xam ni daanaka maam moom danoo nekk ay génération ay génération yaroondoo ci kër gi ma yar ko loolu sama complice aussi sama complice lool daanaka yaayam ñu bëri taawu ndeylaam lañ may woowee ndax euh, cofeel bi yaayam am ci man ndax li ñu ànd def maak moom tey maam mbégte lool ci bis bi kii nag mun ma wax moom lu bari ndax sama xol dafa fees lool waaw maa ngi sant yàlla bu baax di ko ñaan dal yàlla yokk ko moom lu mu lu mu yokk rek xeeb naa ko waaw jéey ma la présenté léegi yàgg ma dégg yàgg dégg aussi mu wax ci yow lu bëree bëree bëri jéey production bi maa ngi yàlla musal la yàlla aar la aar sa njaboot yàlla li ngay def lu baax lépp suñu borom ful ko xam ko it ndax yàlla lu mu xam moo koy fajal bopp kon am nañ mbégte loolu ñaa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulahi rawatina di sant Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul sëñ Mountakha ñu ngi koy ñaanal yàlla na fi yàgg ci wér ak ko diine waaye nag rawatina di ñaanal njabootu maam Cheikh Anta borom dërëm ak ngërëm nga xam ne foofu la ñu bokk te muy suñu lépp euh, di nuyu sama sëriñ bu baax di nuyu sama mbokk yi nga xam ne moom la àndal sama xarit Abo a Gora Thioune vraiment ñëw fii ci Fadel fekk fi ay mbokkam dégg kàddu yu ñu seede yëpp kàddu yu ñu seede yëpp man dama ko bëgg nit di ko seetal mbokkam di ko wax te li ñu wax kenn waxewu ko ak leneen dañ ko waxee ak xol mu dëggu ci ñoom te lu feeñ ci xol lu feeñ ci kanam génn ci xol kon maa ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla defal jàmm fadal dafa nekk waaru biir ku ñëw mën ngaa bay ba pare dem keneen ñëwaat jariñoo ko fadal dafa nekk nit koo xam ne ni li muy def da ko gëm te mën na ko sincère na ci moom nit ku baax la nit ku dëggu la ndax Serigne sàmbay dafay wax ne nit ak baaxam loo ko wax wax ñëpp ku taxaw baax rek ngay wax. keneen mënul wax leneen ci moom lu paase baax. kon nañ ko ñaanal yàlla li mu àttan dugg ko yàlla na ko yàlla sottal ci ay loxoom te mu gën. dégg nga di ñaanal waajuróom bu jigéen comme ni ngeen ko waxee. ak waajuróom yu taxaw ak mbokkam yeeg ñëpp. en fait boo xoolee ñun li ñu des la ci làmb saar yu mel ni Fadel moo ñu fi des la parce que bu ma ñëwee sax ci làmb ji tey. ñëpp a ngay organisé ñëpp a nga kii man damaa ñàkk a dem làmb waaye moom moo a ñaan ne ma ma ñëw ma ne ko dinaa bàyyi lu ma jàppan ma ñëw parce sama liggéey permettre ma ma ñëwoon tey ma ñëw Sénégal que maa ngi doon liggéey leneen bari na lu may def doon nekk tournée Europe liggéey ak ñoom bari na dem ci yeneen mais moom mu taxaw mu ne ma damaa bëgg li ma ne ko man loo ma ñaan ma may la dinaa ko def loolu moo waral ma bàyyi lu ma jàppan ma ñëw mais daal di leen yëgal ne Fadel ñun ak moom ñoo bokk ci métier mi mais nit puso la fu mu fore wëñ ñaw na lu bari lu bari yàqu na ci làmb wala yàqu ci milieu bi ñu xam ko naataangoom yi mën nañ ko seede da koy defar te kenn du ko yëg ni muy mel ci social di ko génne nit ñi di ko gis li muy def ci suuf ak ëpp kon nañ ko ñaanal yàlla nañ ko ñaanal yàlla li ma mën a seede ci moom beneen bi ci des li ma gën a amal importance Fadel jullit la ab taalibe la jullit la taalibe la kon nit bu nekkee jullit nekk taalibe xolom rafet léppam baax dañ ko ñaanal yàlla dañ ko ñaanal yàlla ba nga xam ne li muy def fii nii yàlla bu mu réccu li muy def dina am njëriñ dina am njëriñ njaboot ji li ñu wax yëpp dégg naa ko papa yi sama waajur wala Serigne Saliou li mu wax dégg naa ko te bàyyi naa ci sama xel bu baax ñun amuñu lu dul Serigne Saliou man su ma taxawee di wax wala may gëstu wala leneen Serigne Saliou ma ko defal. est-ce que. Ah, dama lay dégg na la. fii laa la ko waxee nga dégg. ku bëgg sa aajo faju bul xool sëñ Saliou ngi si jamono nekkul ci jamono. bàyyil ba xaaju guddi nga jóg nga dem ci moom. nga toog wax ko sa soxla waxal sëñ Saliou ne ko man mii di wax ak yow nii